gars yi Nicolas Jackson contrat bi mu signé gudd na ak Chelsea ñu na contrat ba pare mais huit ans moom la signé salaamaaleykum amateur du foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant comme ni ma leen ko annoncé noonu sunu international sénégalais Nicolas Jackson sunu doomu ndey moom nag signé na foofee ca Chelsea c'est officiel huit ans la fa signé euh, visite bi réussir na ko xam nga Bournemouth dafa demoon visite médicale bi réussir ko woon mu jee dem de tenter deux fois mais bii moom macha allah réussir na ko ba signé na fa contrat huit ans mu ngi ko deux mille trente et un waaw. yaa nu ko yàlla jàppale nag mu doon fa joueur légende boo xam ne nii la fa Sadio Mané def Liverpool moom mu defal lu ko raw actuellement nag kon nag sénégalais yi après Sadio Mané nañ jéem a jublu ci gone gi Sadio Mané soutenir nañ ko ba mu doon li war a doon macha allah léegi de des ci yoonam dañ koy gunge rek mais moom xam nañ xel que ni dafay continuer. di wóyal nag expérience baa ngi fi mën na la muy mën def na la muy def ba pare lu mu ci dégaat dolli rek lay doon waaye du tee dañ koy soutenir mais actuellement lañ doon defal Sadio Mané lu ko raw nañ ko defal gone kii te xam ne ne niveau ba mu actuellement niveau bu metti boo xam ne nii il faut mu am yu bëree bëri kon nag sénégalais s'il vous plaît Sadio Mané moo nekkoon Liverpool ñu ko doon taxaw kii nag Nicolas Jackson joueur la bu bees bu nekk fële jël Chelsea di doon sénégalais. te yoon boobu noonu doon yoon bu yomb ñun nag ñoo ko war a soutenir massivement na ko ñëpp taxaw bu baax a baax su l'international sénégalais Nicolas Jackson en tout cas maa ngi sa ginnaaw la ma daan defal Sadio Mané la ka raw laa lay defal kon nag gënal góorgóorlu boo doon def benn def fukk sa morom yaa nga nekkal wan leen ne mënuñu la jaayanteel di dugal ay bi may jàllale di partage sénégalais di xam sa code di di yokk jàmm ci aw moom frère Nicolas Jackson bu loolu weesoo gars yi ba tey dañuy des ci info mercato indil leen xibaar joueurs yi nga xam ne ñu ngi waaj a dem ñi nga xam ne dem nañ ba pare ñi nga xam ne euh, daanaka dañuy mujjee toog prolongé seen i club mu ngi noonu njëkkee ko fan euh, ci euh, joueur bi naan Kalidou Koulibaly moom si officiel signé ne contrat 3 ans def na visite médicale réussir na ko contrat bu 3 ans foofee ca Al Edouard Mendy Al Ahli pare na ci moom léegi kan moo des ci joueur yi Chelsea ci trois yooyu a euh, Hakim Ziyech nga xam ne moo doon dem région de Cristiano Ronaldo xam naa ne suba nañ matal lépp waaye daanaka mbir yëpp mat na documents yeeg yooyu yëpp visite médicale ak officialisation képp moom moo des pour. Hakim Ziyech di leen leeral que ni euh, le jeune joueur bi ñu naan Carvalho nekk foofee ca Liverpool moom nag jamono ji mu ngi ci yoonu euh, dem signé ci club bi naan Leipzig visite médicale bi la ñuy jéem a xool euh, nu muy demee bu réussir rek incha allah ñu officialisé ko foofee ca Leipzig di leen leeral na ni que le jeune Ramazani moom nag mën naa ni mu ngi ci yoon Nantes daal mu ngi ci yoon wu xool nu mu koy foxatee ci prix bi mu ngi war a tolloog six millions d'euros Almeria foofee la nekk ñu ngi xaar mbir mi. Euh, nan lay mujjee Al Nassr nag moom nee na du bàyyi kooku di Brozovic malgré FC Barcelone mu ngi ci teg tànk ngir ngi noonee Manchester United nag ba léegi mu ngi ci Mason Mount comme gars dañ ne woon génn na ci course yi mais génnu ci 55 millions de dollars moom la jàpp ne mooy prix bi normal pour Mount waaye teewul du bàyyi yoon bi 55 millions de dollars boobu ba léegi mu ngi valable pour. Euh, offre ñu ngi xaar nag nan lay mujjee en tout cas daal cinquante soixante-cinq millions d'euros moom la Chelsea di laaj ci Mason Mount soixante-cinq euh, millions de livres sterling dama juum waaye cinquante-cinq millions de livres sterling moom la. Manchester United pare pour teg ko ci kaw ki ñu naan euh, Mason Mount ñu ngi xaar mbir mi nan lay demee kookee di euh, Manchester City nag daanaka mbir mi mook euh, ki ñu naan Guardiola moom daanaka mbiri daanaka lépp leer na ñu ngi xaar nu muy demee ci peut-être semaine bi di ñëw lundi mu jëm fa dem signer officialisé Arteta nag waxtaan nag Declan Rice ci mbiru nu mu war a mën a ñëwee foofee ci Arsenal waaye jamono ji daal West moo xaw a dëgëral mbiri lépp lu mën ci xot ci ko mu ngi koy def Manchester City tamit jéem a dugg ci kiir course bi looloo nar a xaw a salteel mbir mi mu nar a métti lool ci waa Arsenal mu ngi noonee gars yi. Ah ba sonn ci jëmm ji di Jules Koundé nee naa ba sonn mu bàyyi yi muy sol nii lu ko mooy dina gaañ boppam de soloon na fi loo xam ne nii jaay dama génn wax ko leeral ko gars yi ku ne di dajjeeku ndeysaan ah mais Jules Koundé baax na interpellé woon naa la ñenn ñi naan ma. noo kii mot lay dund mooy loolu xamoo yooyu mooy leen jaay xam naa mot waaye damay ragal muy jaay mot ba gaañ boppam lii daa bëri Jules Koundé damay ragal lii mu sol nii mu ciy dox ba dëgg tubay yi nag parié fa ginnaaw jaaree fa blessé yàq carrière am te man dama ko yéene mu dem ba ca kanam kanam kon catalan yi bu dee bëgg ngeen am saison bu baax ak jëmm ji wax leen ko mu bàyyi yi muy sol nii. waaw ah, baax na lu ma ci wax dara yii moom day bëgg a dund mot ba gaañ sa bopp nañu dem rek mais gars yi dañuy kaaj rek football bi noonu la catalan yeeg merengue yi ñoom laa bëgg a yëngal ci commentaire yi bu loolu weesoo gars yi ma leen xaar nan ngeen gisee Jules Koundé waaye loolu yamul foofu dañ leen indil xibaar yi nga xam ne jot naa rot tamit ci wàllu mercato ba léegi continuité lay doon di leen leeral que ni jour bi ñu naan Gabri Veiga annoncé woon nañ leen que Liverpool da koo bëgg jamono ji nekkaat na ci temps bi pour jéem a xool discussion yi mu ngi avancé offre nag mooy ba léegi joxegul offre malgré bëgg na ko mais Liverpool tegagul xaalis ba léegi ci temps bi xool nan la war a mën a roccee kookee di euh, Veiga mu ngi noonu l'Espagnol bu loolu weesoo it gars yi leen leeral que ni boo Borussia Dortmund euh, jamono ji euh, ci gone gi ñu naan Edson Alvarez ci la nekk nii ko nekk Ajax googee te it eh, yaakaar na ne ci mercato été war na koo mën a foqati lépp lu ci mënti am rek nañ leen ko jox la ñuy des leen leeral que ni eh, joueur jamaïcain eh, bi ñu na contrat na fa xamuñu nag durée bi nga xam ne noonu la fa nar a ba léegi ko lépp lu ci mënti am rek incha allah di ngeen ci jot ci njëkk ak teewul tamit Arsenal ba léegi. léegi mu ngi ci euh, kookee di euh, Timber dafa defoon première proposition Ajax ñu lànk waaye deuxième position proposition bi deuxième offre bi ñu ngi koy waajal xam naa dinañ gën a yokk seen xaalis euh, pour Timber l'Hollandais bi nga xam ne gone gu am avenir la dina leeral que ni Antoine Griezmann gars Euh, club Arabie Saoudite yi ñu ngi ci tànkam pour bëgg koo jënd euh, Al Nassr bëgg na ko actuellement nag damay ragal Europe joueur star yi fa nekkoon yëpp Arabie Saoudite fuqati leen yóbbu leen mu lool loo xam ne euh, nar naa métti ci football européen yi kon nag nañ ci ut pexe mu ngi noonee waaye yamaatuñu foofu gaa yi di leen leeral que ni le joueur bi ñu naan Yannick biseek moom nag jamono ji Inter de Milan moom moo ci teg tànk ngir war koo mën a jënd mu ngi noonee l'Allemand 7 millions d'euros nag la transfert bi war a doxee mu ngi xamee kookee di Yannick Bisek yamaatuñu foofu Havertz nag ak Kovacic jamono ji li des pour ñu jugee Chelsea bëreetul Kovacic am na accord total ak Manchester City waaye Havertz tamit am na accord daanaka ak ci ñu naan Arsenal mbir yi daal xam naa ni semaine bi di ñëw ci la lépp lépp lépp lépp nar mu ngi noonu waaye yamaatuñu foofu gars yi li nar a neex mooy que euh, Di dafa nar a dem retourné waat Benfica nga nga xam ne fa la soqee ko euh, defaat foofee comeback am retour 2024 euh, la fa nar signé contrat ba 2024 contrat bi dafa nar a dem foofee kooku di Angel euh, Di nga xam ne dafay quitté euh, fële ca de Turin yamaatuñu foofu gars yi Mohamed euh, Kudus moom mi nga xam ne moo nekk fële ca Ajax jamono ji daal seen joueurs ñi ko ñi ko bëgg bëri na te damay ragal ñu dem ba seen joueurs yi jeex tàkk dootuñ fa nekkati moom nag Brighton. mi nga xam ne fa la Caicedo nekk waaj di waaj a dem euh, McAllister nga xam ne dem na Liverpool ak jour euh, bi ñu nekk fële ci Arsenal j'ai oublié son ñoom ñëpp dem nañ kon nag dañoo bëgg a renforcer seen équipe bi ba tax Mohamed Kudus di Ganaye boobee jamono ji ñoom teg nañ ko tànk ngir war ko euh, mën a jënd di leen leeral que ne ba léegi Thomas Partey mu ngi ci yoonu jóge foofee ci Arsenal Arsenal ibbil na ko yoon bi lépp leeral na ko pour bu en bu waree dem mu xool ban yoon la war a mën a jaar pour mën a dem foofee ci ba léegi ñoom joueur Leicester bi nga xam ne seen club boobu dafa waaj deuxième division Leicester bu ñoom Nampalys Mendy nga xam ne dafay jógee moom nag jamono ji Tottenham teg na ci tànkir bëgg koo jënd sori na ci mbir ñu xaar finalement nar lay demee incha allah mercato bi transfert bu ñu leen mënoon a wax rek après gis ngeen ko incha allah ñu ngi xaar noonu lay demee demeen ko tonali daanaka AC Milan li mu jël décision def mooy que dina ko jaay Newcastle waaye moom dafay euh, pour cent ci euh, joueur boobee pour koy jaayaat revente bu amaat moom dina ci am paaru 10 pour cent kookee di tonali loolu la ko Arsenal euh, maanaam Milan noonu la bëgg a doxalee joueur am boobee milieu terrain nga xam ne jamono ji vraiment ku am talent waaye ñu ngi jéem a xool ku ko war a mën a remplacer ci club boobee yamaatuñu foofu Mikel Arteta Arteta ba léegi mbébétam mooy jéema a foqati euh, jour euh, anglais bi ñu naan Declan Rice mu ngi ciy def kéem kàttanam waxtaan naa ak moom mais mooy loolu ba léegi amagul euh, suite su Koulibaly sunu international sénégalee nag moom leeral nañ leen def na visite médicale am ak club bi di Al Hilal te réussir na ko muy ngi noonee ñëpp nag d'accorduñ ci waaye choix am la moo xam lu ko neex mu def ko c'est à lui nag moo yore carrière am te it moo yore xaalisam xool nan la koy gérer leeral que Euh, Achraf Hakimi moom nag joueur PSG bi jamono ji mën naa ni ñu bëri dañ ko doon annoncé que ni dafay jóge PSG Manchester City da koo bëgg mu ngi leeral que ni moom dafa projet si si euh, PSG daf ko bëgg 100 pour moom moo nekk ci xolam mu ngi noonee ma leen di xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee xibaar mercato bi képp koo xam ne nag abonné goo sama chaîne ci YouTube c'est simple duggal sama bio TikTok nga euh, dem mu di nga gis logo YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche bu ko defee foofee dara du leen rawati mën naa information yi leen rawoon ci journée bi yëpp moom résumé ci benn vidéo daanaka bu ko defee guddi na ba pare moo tax mënuñoo def di defaat moo tax ñu résumé leen lépp ci euh, minutes yi nii. ma leen di xaar ci commentaire na ngeen ko gisee ngeen dem suñu chaîne YouTube s'il vous plaît ci Pa Assane Gueye Lébou ngeen abonné activer cloche surtout di seetaan vidéo yi foofu ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax les gars merci à vous jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo jaajëf yàlla na seen jàmm yàgg jaajëf sama gars yi